waa xanaa <laughs> xanaa bëgg bëgg kii rek mala ma bëgg animal yi waaw animaux yi wax dëgg fa yàlla waaw mun nañ ne nag euh, am na ay jafe-jafe mais bànneex bi moo ëpp parce que daanaka ñii suñu njaboot la ñu bokk suñu xëyee ba gis xari rek suñu xool day sedd euh, suñu suñu entre stress lañu mën naa koo wax parce que man mii di wax ak yow su ma énervé wala mu am lu ma metti su ma duggee sama yi damay nekk euh, en paix ak samay samay xar daal le fait que may gis rek da fay da fay defarat sama xol dal waaw wa voilà wa jafé jafé mom mënul ñak liggéey bo gis amna ay contraintes euh amna ay jafé jafé ci walu alimentation bi cher na trop ci ñun parce que bergerie lañu yor quantité fay da fay da fay da fay bari waaw amnañ benen jafé jafé aussi amnañ problème insécurité waaw parce que des fois aussi nga dégg na jëlal nañ sa nawlé ay ay xar té lool tamit ça fait mal te investissement bi tamit dafa xaw a lourd su fekkoon nañ ne am nañ ay encadrement ba façon yu mel noonu wàññeeku doon na gën a baax. waaw sama mbokku jigéen ñi maa ngi leen di woo pour ñu ñëw dugg ci élevage euh, élevage euh, neex na comme ni ma koy waxee ñun yi ngay gis nii doo dem doo dikk amoo àndandoo say xar ñooy sa lépp à part sa occupation sa liggéey soo wàccee yaa ngi ci say xar euh, te vraiment aussi investissement la soo gisee sama slogan bi. affaire waaw féminine wax dëgg fa yàlla maa ngi siy gis sama bopp. waaw loolu sama vision la kon ñun sama mbokku jigéen yi euh, damaa bëgg ñu ñëw dugg si élevage parce que tamit moyen la voile aussi pour suñu suñu réussite. parce que man ba ma commencé ak léegi gis naa si amélioration bu mat sëkk yàggoon naa di def ay investis investissement si yeneen yeneen côté mais investissement bi ma def si euh, xar yi maa ngi siy gis sama bopp. maa ngi gis sama bop bu baax wax deug fa yalla may inviter sama moroomu jigen ñu dugg si bo tolo si biti nak dañ la naan dafa metti investissement bi dafa cher mais da ngay def petit ta petit parce que man tamit ci souf la commencé di def ndank ndank wa sant yalla ñun mom ay agriculteur <laughs> wa ñun ay agriculteur lañu man ma ngi si tool yi eh, depuis 4 ans ginnaw bima duggé ci si dum rek dama xamné képp kuy def eh, agriculture élevage da nga wara def agriculture si la ut ay tool sanjara maa ngi à 7 kilomètres de Sandiara euh, di def foofu lépp li nga xamante ne samay xar ak samay ginaar dañ koy dundee man dama koy béy si sama tool la plupart du temps waa euh, commencé naa fourragère commencé commencé naa ko mais damay def ngooñ damay def ñebbe damay def mboq damay def basi non non mënu ma commercialiser waaw parce que damaa nekk waaw damaa nekk si ginaar yi aussi euh, coloré yi ak poulet de chair te dama ci nekk ci quantité bu am doole léegi lépp lu ma liggéey rek man dama koy dugalaat si sama sama sama sama sama kii ferme bi waaw. waaw bi may sama première participation bi may sama première participation waaw ñun tamit euh, ñu leen di encouragé tamit comme ñoom bi mooy seen première édition ñu leen di encouragé bu baax a baax di leen ñaanal aussi yàlla may leen ñu eggalee seen sago waa organisation bi dama naan je suis satisfaite parce que man aussi comme traiteur laa dama ñëw ak sama liggéey maa yor restaurant bi. wax dëgg fa yàlla amul um, benn manquement de mon côté maa ngi ñoom installé nañ ma jox nañ ma liñ ma war a jox maa ngi liggéey waaw xar yi bu ñu aussi ñëwee aussi nekk nañ si ay condition yu baax jox nañu ay box ay paay li ñu doon jooy lu gën a bëri am nañ ko teel nañ ko am muy ndox ak ay toilettes waaw li ci des nag xam naa beneen yoon rek ñu gën leen a ñaax ñu gën a améliorer incha allah waaw xanaa di sant ñëpp di gërëm ñëpp di la ñaanal yow tamit yow ak yàlla yóbbu leen fu gën a kawe.